Malaw nuyu naa. ñoo ngi ziar ci loolu de. yaa ngi am jàmm baax a gis lan mooy waral loolu. maa ngi toog sama ruq rek. <laughs> gars yi ba léegi ñoom waxagul lu leer ñoo ko bëgg a génne si làmb ji. sama du moo bëgg a génne bopp. ñooy daw. Ah. waaw. yan booy. ah yi daw bëri nañ de. ñu ñu dal bi grand bi daa weex de. Malaw. non dañoo war a ñëw ñu bëri nag. boo comme ñan comme ñan ñoo war a ñëw ngeen que man. gis naa benn booy laaj ñi qualifié 2 laaj bi am na respect dinaa ko jël daan ko rek loolu dara. kon yeneen booy yi la doon yi doon laaj ku ci mel ni ay ay ay ay Siteu bu ay Liss Ndiago ay Laurent ñooñu bëree woo ak ñoom. ñoom xale yaa ngi ñoom bu ñu waree bëree dinañ bëri xale yi loolay problème bi am na fu ma toll si laam boo xam ne am naa ñu ma war a bëree xam nga ko su ñëwee la bu jaaroo damay bëree. léegi ma mën a naa laa limal ñaar sa diggante Coly Faye sa diggante ak Tapha Mbeur est-ce que pare nga pour bëre ñaari xale yi. Tidiane Tidiane ñëw ma jël Coly fay Tidiane Faye Tapha Mbeur da nga ko ci écart. non Tapha Mbeur bëreegul ma moom. ndegel Babacar maa la dégg nii. mais sa diggante ak Tapha Mbeur ko daal. mais daa ñoo xam ne boo yoo xam ne ñoo a may chance ñu progressé ñoom may comme may may na muy Mambala mu am nu mu demee nañ ne may xale yi chance moom it lu am loola rek mais ñun duñ nekk rek du da duñu may suñu xale yi chance la ma doon duñu may suñu xale yi chance ñoom. mais sa diggante ak Tapha Mbeur ak Pikine te defe naa Tapha am coow non booy làmb non pas mbër moo xam ne wax ji moo bëri rek mais làmb moom nañ dem ba si kanam rek dinañ gis lépp mu leer bu neexee. boo déggee wax ji daal sa diggante qualifié nga xaw a gën a sawa sax. non bu ñu ma moom xam nga rek comme bu ñu mujjee bëre bëre Aji Fall Ada Fass ma jox sama avance mu bëre ko xëy na Ada Fass daan na ko xëy na da moo gis dynamique ba léegi ma bëgg ko jël rek. mais qualifié qualifié fi mu toll nii ak ak naxa bi mu nekkee est ce que jël qualifié dina yomb ci yow nag ak yow li la gëjee gis. non man yooyu du problème man naa bëre rek man boo boo bëree rek feeñaat loolu mooy rek na ma gars yi tegal ba ma bëree. mën nga feeñal sa bopp ci kaw qualifier. fii dama koy feesal yàlla na yàlla defal jaamu rek ba combat ñëw promoteur bi koy tëgg laay. maalaw nag maalaw nag est-ce que gars yi fàttewuñ la nag maalaw. man ñu ma man ñu ma yar ma fàttee xol xol lañ si man ñoom ñu ma mës a fàttee ñooñu jàppee wuñu victoire ak défaite buñ ma ko jàppee woon kon moom mooy bëre mu ma jàpp du ma indi dara ma saa yi bëre mu fees lambu. boo ñëw nag waa Pikine gépp lay andi. déggoo lu ma bëre Pikine benn baraak yëmbal Malika lépp lañ ma indi na nga xam loolu dëkk ma benn gox de. lan ngay wax waa Pikine nañ ko waajee. waa Pikine waaw xam nga ñoo ngi ñaanal suñu ak ci tey suñu jarbaat waajal nañ ko ni nga war a waajal lépp Pokola di ko ñaanal ndam lu sedd guy da gëm nañ sax loxoy am yàlla na ko yàlla defal def na li mu war a def yëpp da gëm naa si kanam tur yaagatul dina wala li mu mën bu neexee yàlla. kontaan naa